alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil aziim yaa himmata cheikh udur na baasal maasari wal taatufi bi nasratin tatna bisuri kon mbokk yi ñu ngi commencé diiwaan Cheikh Ibrahim daawuñu sab wala sitta juróom benn lañ mu tëjee ko ko juróom ñaareel mu ñuy fàttali asamaan yi ak buñ ko bindee suuf si juróom benn fan ñu daal def istawaar ci seen aras bàyyi lu mu def rek dana am lu mu tegtale mi ngi ko tuddee nag tey siiru usul la may wax ne mboolem téeri bàyyi album la mel na fu ñu def ay photo boo bëgg a xàmme waaye tey siiru usul du téere tey ki yombal xàgg ci yàlla kan la mu ko fekkoon àgg ci yàlla jafe lool mu dikk yombal ko lool kafaytu sahaabi bi tarik anaaw kunu mbir gis ndaaru muna kon nag di ko fegal saaba bi ay andooy waaye nag andooy la wax de ñoom ñëpp am nañ seen bëgg-bëgg moo tax buñ bu ndikk fekk yombal foog na nit ñi fànnaaw fànnaaw nit ñi xamaguñ fànnaaw bu baax waaye nag nga gis bu dëgg dëgg gis bu xàq yi daf lay xacc ba nga dellu ci xàq nit ñi nag xamoo sulukul ibaadaat ak sulukul xaqaayiq sulukul da ngay topp rasul xàq bi rasul xàq boo ko toppee da def nam def doo wax lam wax déedéet da def nam def da ngay jëmmoo nam jëmmoo da ngay nam melooyee da taxawee nam taxawee da jeex tuddoo nam tuddooy rasulaay bi nag mooy dangay ngay dikk di jaamu nam jaamu waxee wala ko fi rasulaay usatu léegi nag kër yi bàyyi nag boo déggee li ma wax nii daf lay yombalal yoon jafe na waaye dam ko xam kon nag ñu ngi ci paas bi nga xamante ni mooy paas set lu bàyyi commencé mooy mi ko commencé ci xarafu alif foofu la wax ci commencé waaw ah bàyyi nag buy woy rasulullah xam nga nit ñi xam nga woy rasulullah bàyyi dong mooy woy rasulullah bi nga xam ne ndaxte gis nga ñaar moo am mooy inna allaha wa malaykatu yusalluuna ni ngay continuer julli fan ala nabi kon julli ga sëlmalagul ci kañu julli ka ba kañu ba ñu julli ka mi ngi fi ñoom ne julli ñu ngi fi kenn dema ko salaatu boobu nag ba mooy daw foofa salaatu la tudd ba mu dikkee ci nabi nag tuddatul nabi du tuddatul kan sala salaatu mu ngi tudd salaam salaam boobu nag moo tax ku tuddoon euh, ko tudd mënum moo tax huwa lazi yusali alako malaaka yow yokk mën a sulumaati kon nag huwa moom moo def salaat deuxième salaat léegi nag kooku nag huwa moom nag moom ñu julee fu mu julee ñun ñu julee ñun moo tax kenn ku nekk la nga xam ne ñun ñoo gàttañ nga naan sama sëriñ yàlla suñoo tën la ko déedéet yow fàttalikul ne yàlla junni ci yow nam jula sa sëriñ dafa nekk xaaris wax moom la ko yàlla defal yow nag yow gaa waroon di ko xam ni la yàlla defal mooy yàlla di wóor la si yàlla nam jullee ci mu wóor nam jullee ci sa sëriñ noonu la jullee ci yow sa sëriñ mat yow nga watadi ñun nag yàlla may ñu sëriñ bu mat ñu xam ni mu jullee ci ñun mu dikk tey si lu so yombal ñu àgg ah bàyyi fu mu commencé abba lànk na alqalbu damaa bëgg tafsir bi ñu koy déglu ñu xam di ko firi buñ firee ci firi téeri bàyyi firim yàq mm-hmm. ñun ci kàttanu yàlla wax dëgg yàlla jàng nañ téere saahir yi waaye amul importance waaye am nañ ndigalu moom muy ñoom sooraaw maqaama duraydu daaliya bayaan ak mantiq ak yooyu yëpp wax dëgg yàlla jàng nañ waaye yooyu boo ko jàngee ci saahir amul benn njëriñ keroog boo demee ci tey bay ñeseen da tey bi tarbiya la wax abba lank na alqalbu maanaam qalbi la bëggoon wax waaye alif alif ak laam soo ko indee ci arab day yàqu kon roqam bii nag alxam ba ne sa waaye nag da ko firee sama xol bi lu lànk nee na moo lànk illa an lu ma nekk rek moo tey yama nekk kuñ def jaam Ibrahima man jaam lay doon de du ma nekk lu dul jaam xalifa xaraamin damay taqoo mbëggeel xaraama mbëggeel ak boo ko déggee mooy ah, nit koo yoreel bor xaraama buy xaraama xaraama nii xuramaa buy bàyyi koo sa téere bi fay fay kati bor yi ñu ngi dikk ne ma fay ma léegi nag moom bàyyi moom dafa jël léegi xaraamaam bi dafa yorel yonent bu bor maanaam rasul daf ko yorel bor ba génn mu ne ko fay ma sama bor kon nag dafa taxaw mooy taxaw taxaw bëggee ko kan dafa yore bor bor fan la mu xay yamaan may kuñ gëlëmal bi nabi ci nabi bi ban nabi lii ma lay wax ne nabiyullaahi ak rasul na ak nabiyullaahi ak bopp nabiirul xàq bi moom la xàqu def salaatu ci moom moom la xàqu def salaatu ak malaaka yi nabiyullaahi bi nag moo tudd waliyullaahi moom la ni nga julli ci moom ak malaaka bi kon nag kële mooy rasulullaahi der kii de rasul rasul xàq kële mooy rasul xàq kii de rasulullaahi kële mooy nabiyullaahi kii mooy nabiyu kële mooy nabiyu xàq kii mooy nabiyullaahi lu tax ko nabiyu mooy fii bi ñu ko tuddee nabi bu dikkee nabi bu dikkee ci nabi wilaaya bu dikkee ci nabi maanaam wala boog nabi bu dikkee ci wilaaya bu ñu ko tuddee nabi wilaaya lañ ko tuddee naka laahu bu dikkee ci nabi kenn ko tuddee laahu nabi lañ ko tuddee ka ne woon maay laahu bu ko neexee bu dikkee na may nabi ka ne woon mooy nabi bu ko neexee dikkee na may wali ka ne may wali bu ko neexee dikkee na may allahu wala yàlla ko allahu wal wali innama walikum ala kon kay wali moo tax na gis nga wilaaya fort yàlla waxoon ne may nabi waaye wax ne may wali allah kon wali innama walikum allah wa rasul boo allah wali la seen amri yoo xam ne mene sun baati gis moo mën a bàyyi dama day man sama xol bi dafa daal nee na jaam lay doon abitu dinaa fanaan timmi guddi gu mat fa la ko araam waxee guddi boo nelawoon day yàgg ak yow saxaraana maa ngi naawi nelaw maa ngi ñu ko fii foog mun si ren maa ngay maa ngay wëy ca kaw insaan boo ko déggee mooy gàmmukat bu téye micro di wax ca kaw ñu ne ko waay bàyyi loolu tey na bat an ca tàmbali wa maxtamal ak ci mot tudd kooku day moo tax maa ngay wëy ci kaw bu guddi jotee tàmbaleem dafa set amul benn takk-takk ndax ca ësël la nekk ba mu dikkee fii ci ëbët amul benn taas-taas xam nga maa ngi lay wax ne boo déggee bu ñu tuddee laaw ne subhaanahu wa taala mooy ba mu dikkee ci pays boo xam ne pays takk-takk la te takkul dara xam nga léegi waman yu ca rasul faqad ataa léegi nag ina li seen yu bàyyi en maa yu bàyyoon na ba nga gisee rasul boobu kat bul foog ne dafa takk ni nga takkee Mouhamadou Bassirou waaye laa xam Bassirou baloo kal yaa continué bay naa moo tax bu ngeen taxawee ca naaj ba yow takk ndéer génn moom takk ndéeram du génn ndax takkul moom kon nag loolu tax nag moom dafa teey ca tàmbali dafa teey ci man Oussa maa ngi sottaante baab fii ca guddi ga alwar kab te tax ma lay lii sama guddi gi yépp woo jiirati da nga firee jumla da nga firee ndax dégg naa ñuy firi toujours man man maa ngi déglu ñuy contranté waaye da nga war a xam xam nga léegi euh, euh, fatawa yeminil euh, kaw na xam dan mbir moom jaam laa noonu nga koy firee na ko firee xam dan mbir moom jaam waaye ñu ko firee ñoom xaal musawaran boo xam ne jaam buñ def buñ def sang waaye du musawaran ku ñuul xam nga bëgg bëgg bëgg a xoote bu mu tàng nag sans waxi baay bi ndax c'est intérêt dafa haram bul jël change change waxi bàyyi waxi bàyyi bul ko changé Cheikh Tidiane ne ku ko moytu nekkul tax yu nu xawaatira na yuñu àll àll ko dafa ne këpp kon nag maa ngi koy wax nasiihatan ñi déggul lu arab pur ak dégguñ nawu dégguñ bayaan waxuma ko pour xat waaye dama koy wax pour leeralal leen ñu dimbale habdan mbir moom jaam laa man musawwadan isma fon la isma fon musawwadan kuñ def sang nag man day jaam laa ànd ak jaam bu doon sang waaye nag buuma jaam buñ mu la nga bëgg a maa ngi def kon nag <clears throat> ah, musaajala musaajalatu ci arab boo ko defar waa xam nga booba da ngay gis ñun ñaari bëri laa mu ñëw ku ci daa xabari ñu ñu sooxal leen booba arab ci lox lay bëri léegi nag ñaari ñu ne diw wëykat la ñun diw ko dàqaw ñu ne ay ca nañ daje ñu def musaajala maanaam diw dóor wëy nga dóor wëy nga dóor wëy ci dóor wëy su ko defee kenn ki dem mu mën wax kenn kay continué wëy ñu ne ko moo la man moo la man moo la man lan bàyyi nag moom léegi. Mhm. ñu ne pitax ma nga xam ne moom moom la seen doom ja deewoon ca kaaram ñëw la. bu ko di jotee dafay <laughs> dafay teral. dafay pitax ñëpp ko ko ko di jotee. Mhm. mu ne ma ngay sotti baax. Mhm. may maa ngi sotti baax. ah lay lii. woo jiirati ni yaamu te fekk sama dëkkandoo yëpp a ngi nelaw baa fekk waa mbir yëpp a ngi nelaw. wala boog bu ma fu ma nekk rek nelaw. Ah, man maa ngi wéy. Ah, woo nii. sama mbari bët kalmasaane bi dafa mel ne que ay rigol maxrama ndax bëgg yëm ci biir sama bët yaa ngi naan xàccaca di sotti ay rongoñ mel na rigol boo xam ne rigol bu ndox ndox may sottee ko noonu mas na maa ngi ko fii gëccur nga waaye xale yi <laughs> boo dee wax seen xam nga ndox yoo ndox yoo mën a ci kitaro seen yi boo boo seengee dañuy def benn xurur boo xam ne dañ cee def sa bëri bu ndox mi di ci xoolee ko lu muy gëccur nga wala tuyau yi nga xam ne mën na def di jaar ay ndox la mooy gës gëccul nga waaye nag xamaa ne ci wolof bi daf cee baax mooy gëccul nga waaye tuyau baat tubaab la <laughs> léegi kon nañ kon nañ boole ci suñu njàngale bi delloo si baati wolof yooyu <laughs> ah bu gëccul nga mooy mooy rigol kon nag sama bëri yaa ngay sotti mel ne rigol boo xamante ndox maa ngay sotti mm-hmm. ah una si mu maa ngay nos bàyyi ñu ca mbaaram bi si jéem a léegi lan lay nos doon la si ori baat yi noo koy defee fi sikkiri was fii maa ngay tudd ay melokaanam mi xam nga man damay wax ne bàyyi bu sant doon ñes ah mu xaw yëkkat ko bàyyi bu sant doon ñes du ma ko gëm ndaxte daawooda moom moom moo xamante ni moom lay amoon sunat la boof métier meñ kon nag ki nga xam ne moom métier meñ waaye métier bi nga xam ne mooy xa mooy tëgg kii yi ba kaa inaar yi nekk seen kiyaar yi kooku loolu moom mooy tëdd bi nga xamante ni mooy tëdd ma mooy boobu waaye ñun dañ fa ne boo sant ñes boo sant caamane tëdd nga <laughs> wala nekk sant sàmm maa ngi noose oor yi baat ci tudd damay tudd melokaan bi bàyyi ne wa ahsin yéemul da koy firee firee taaju yéemul ak rafet bi wasul badri melokaanu weer wa duran muy or mun a sama xam nga or dafa rafet waaye or nag boo ko visité bi dikkee nag euh, dugal ko ba couleur ko nag dugal ko ci biir kayit yi or ba day yokk rafet kon nag yonent maanaam Muhammad Rasulullah bi melokaanu yi rafet nañ ko innaka la'alaa xuluqin aziim waaye nag boo ñëwee jikko yooyu du ko indi par benn mu mel nañ càq or foofu lay gën a te rafetal mm. ah ñu ne waaw bàyyi ki nekk takk mooy kan Mouhamadou kuñ sant ki xam nga ñun kuñ sant ki da ngay ko war a déglu Moustapha ismu maf'uul la kuñ sant ki ismu maf'uul la Muxtaar ismu maf'uul la Muntaqa ismu maf'uul la Mujtaba ismu la yonent bi nag du du ne kenn ko tuddee ismu maf'uul yonent boo xam yonent bële ismu faayil la nekk turam ay ismu faayil la ñu doon <laughs> dégg moo tax nag. ayaa si fatan xas subi ak isbi fayil ma te jiiti fii la dina ñun ñun ñoo nekk ci kër bàyyi ba pare nekk ci fonte yi seytaan dañu folo rek folo ci may lii may laa may lii may laa ba yàqal ñu liñu ñu taxoon jëm mm-hmm. waaye ñun dañu war a xam nag lan mooy feel lan mooy fayil lan mooy sifatu musaba lan mooy isbi fayil mm-hmm. suñu ko xamoon xam yàlla même buñ déggoon na woon si digg yàlla mm-hmm. ndaxte ci téere bi yoon woo xam ne bu ñu ci na wu léegi ah comme ni nga def kuñ sant gi miftaaxul futtaat mooy caabi mooy mooy miftaaxul mm-hmm. futtaat mm-hmm. ubbi ubbi yi mm-hmm. benn kele ngay jël ubbi te ubbi ko benn kele mooy kan mooy Muhammadu kuñ sant xam nga li futtaat yi dafa am caabi ku koy ubbi mooy aadiya aadiya boobu nag caabi ba koy nga xam kuy aadiya Muhammad yi aaxulu mooy kan Muhammad yi Mouhamad yi moom la caabi la waaye caabi jooju nag pour a dégg Mouhamad yi moom mii Mouhamad mii ngay dikk mu tijji la ko. maanaam mooy Saayir Saayir mooy Ahmadiya Ahmadiya caabi la waaye caabi ne balaa ngay dégg da ci nga xam ne mooy Mouhamad mu tijji la ko. xilaafatu moom itam mooy abaat bi kooku it moom itam caabi waaye balaa nga koy mën a xam caabi ji da ngay dikk ci caabi benn dëgg ndax léegi yow sa siru bi mën naa ca jot te jaaruma ci sa yaram bi sa ruu mën naa ci ndax jot naa jot ndax sa xel mën naa ci jot sa xel sa sa xol mën naa te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk kat caabi la kon nag yow yaay se kon nag li li lim ndax boo bëggee xam li la bàyyi wax xool ko sa bopp yow yaay caabi say yi ah ñu ne sama xel dañ nangam dañoo defi nangam bëgg naa nangam maa ngi def nangam xalaat naa nangam loolu yëpp kon nag ku koy def yow yaa ba mu xalaatee soo naan tekk xol keroog xel xel xel la <laughs> ah, kon lii moom fi nekk kii mooy miftaal futaati moo tax sayidi mooy sama sama mat dama def wa qaatilu silki rusli moom moo xat nu raangal yonent yi xat nan muy xat nu boo xamante ni moom lañ tuddee xat nu waaye mu xat daman moom la njëkk kat wax na dëgg de <laughs> moo tax boo demee ci mu ne dafa am ahmadu rasul ak ahmadu cheikh kon Ahmadou Rassoul Ba moom lañ mooy moom lañ kii waaye Ahmadou Cheikh moom lañ dikk xam nga xam nga xam nga ko fii kan <laughs> bu fekkee ne jàngaloo euh, da ngaa xam xalaas Aliou Alassane yi mooy jaayal maan bi ba ci bàyyi nag a xam nag Alassane yi ki nga xam ne moom boo ci bàyyi. nga koy déglu nga dem jëli waxi taalibe ya mu feeru ko demal ci wax Baye Ousmane Ndiaye boo demee ci eh, Irtiqaal Mouridine nga déglu waxam ya da nga mën a xam ne ci feeru la nga déglu waxi mi ministre yi ak ñu ñoom yëpp waxuma ak ñoom rek laa tudd ah, daw na la xam nga kenn ku ne xam nga ñun ñun taalibe yi ñoo dikki andi problème ñun dañ fa ne ñii ne ministre yi rek wala wala Baye xal yun xadim yi xaasiru sirikaati bi al si ali dafa am benn spécial lu mu yore ci gouvernement bi xaddimi xaasiru siri kaasi bi ñetti yëpp moo nekk ñetti fonction bi tas yi ni fati mati xarxala ku la faye kon kooku fonction la bu ne naa ko tam waaye nag kay dem xam nga mooy tam suñu fonction wax ne moo ko fi too kon nag boo fekkee kenn ku ne yow nag yow miy taale bi ci kër baay bul faale xam nga loola tax nit bi jënd marché bi su ma intéressé bi ñu mooy bàyyi bàyyi luñ si intéressé mooy yonent mooy wilaaya ga waaye yonent bi luñ ci lu luñ ci intéressé mooy lu booga lu booga luñ ci intéressé mooy ulóoyi ga ulóoyi ga luñ ci intéressé mooy xàqu ba loolu moo ñu tax a jóg moo tax da nga dàq xayru da nga dàq xayriitu soo ko defee ko dem de kii nag moom moom mooy xat mu xat na foo ko déggee mooy lu moo mujj ñëw maanaam képp ku ñëw boo bëgg a doxi moo lay sàng càngaayam na nga doog a dox sax moo tax ñu tuddee ko aynil maarifi jëmmi maarifa yi ñeenti yii ñooy jëmmi maarifa ñeenti yëpp ñooy ah maarifa ñeenti lañ këran jëmal ba nga mën leen a xam nag mooy kii moo tax mu ko mu taal futaat gis nga ah, ah, léegi suñ xamoon téere bàyyi ren dama maanaam suñ fekkoon téere mën naa ko gars yi dañuy bàyyi weerante yi nañ dikk nag firi bàyyi ñu firi kon ko ba dégg firi ne ñu daal am fatu mm-hmm. daa def fa inna madihi lil lil tariqatu bi idraaki fay dun doon na kulla sànni sama ma takk yi ma takk yoon la woo xam ne boo jaaree man ngaa jot fay boo xam ne moo raw fay du passé woon ñun nag day dikk jël waxi bàyyi taaw ko taawil ko te dem tekkee koo ko rek ci ñaaw ñaaw bëgg bëgg bëgg taal bi ak yooyu bu mu la ci dugal yow oustaz ngay kenn waxal lii dëgg ki soo ko génnee jëriñu jëriñee doo yàqal kenn kenn xëy la yàqal ñu ne waa bàyyi ki nga kooku mooy kan mu ne kuñ sant kii waaw boo waroon def bañ sant ko dara kan moo def duñ ko sante yaram kan yaram kaw mu moo xamante waxul gis mu woon kon nag boo sante nag keneen demal sant ren bàyyi rekk gàmm bàyyi gàmm lii mooy mooy gàmm ah, bii ci moom mii naara la amee ulul adduyaay bépp adduyaa manaalum seen may xam nga lu ma bëgg nit ñi may ngan ñun waxuñ Cheikh Tidiane ma ca Fass waxuñ ko de déedéet min xaqi mu nga xamante ne mooy ahmadiyatu ahmad la ñu waxal waaye waxuñoo borom borom borom Fass ñun waxuñoo borom Fass ñun waxuñoo borom Kaolack ñun waxuñoo borom Medina ba ak Makka Medina déedéet kooku nit la ko ni que ni que ñun am dee bàyyi moo tax laa darrahum tanaafutum bil faani is kullu maa yaroon na yéen a fàcc si wuyu bàyyi woowu su fekkoon ñu ko xam nga ni dem ne bàyyi bu la xëccaat na taalibaay yi dañoo xëccaat loolu du faani wasal abdi faanin jaam bi dafa jeex de lay si bi ba xiitu ah waaw ku jeex na loo ci xëccoo kon bu xëccoo Ibrahima Gueye taar bu rafet baax borom kaala baax borom yooyu bu ko xëccoo xam nga koo xëccoo mën nga xëccoo xaqi xam ba soo xëccoo foofu ca ngay dem waaye soo xëccoo kii kii dem na di ana anam man ngaa fexe bàyyi di cardir tardi nit ñi boor ceeb boobu mi ceeb bu mi di ba nga ñëw gars yi doon mën na fi Amad ak Amad bu xëccoo xar cooxal ki nga xamante ni moo doon mot motusaay ba doon daw seen biir. almasaayu sara motusaay waaw loolu boo ko jàng kon xamal yow mbubb mbubb boo xëccoo mbubb bor bor mbubb ngay xëccoo mm-hmm. yooyu yëpp ay mbubb la yoo xam ne nga sonal ba dañu kii yow yaay kan mu ne ah man de maa ma lañ may wooyee. Mm-hmm. waaye waxu leen mooy bu gën a moom moo ko tuddee maa ko waaye man ah man de maa ma lañ maa ah te danañ ko la jox loo jox la ah man daal man du ma man de du ma yàlla wax dëgg yàlla mm-hmm. ah nee nañ ko la jox loo jox ko laa laa loo mu ne ah waaw. laaw de mën na ko wax waaye man moo tax nit du wax mukk maay yàlla laaw nag lu ko neex mu ne maay ku jox rasul maa nga jox loo di nga fii bàyyi ñes dañ tarbi tarbi yoo xam ne ñun walay sëñ daal ku doosu bil ay ñi nii man gis naa yàlla bàyyi di xatte ni ñu ko dégg wane mooy xamle yàlla ak wane yàlla xamle lañ nga wax <laughs> xamle kon nag xamle nga soo ko tuddee woon a araay taxanaa gisoo araay taxanaa gisoo gis dañ ko tuddee xam xam ñu tuddee ko gis waaye nag da ngay xam ne bu dee ci yàlla moom du gis ak gis gis ak xam la wala sa yuraat bi ay innama bi ay na xama wa saqi wal maqi wa boo ñeent yi boo ko defee xamaa da ngay gumba ne patis ah ba ay nama wa saqi nga toj maqi nga tasaaro nga ne fërr ba amatoo foofu nga koy gisee ji kon na boo foo ko gisee ji foo amee ba di ko gisee ji ah man de xaw ma ko la waaye na sori de xam naa kon nag kii nii bii ci moom mii naan la nga kullu anbiya lan la ci a maanaam seen may am yonent yëpp kenn ku ne lam amoon ko jëlee moom moo ne ko yaa ngi dem moom ne ko kaay ma yónni la xanaa yàqu ngeen defe ne xàqu xàqu saatu saatu saatu saatu ba mu kon nag moom moo dikk ne eh kaay demal ma Sénégal boo demee pareel ma lii tax ñu gëm la acca demal yow kële acca acca acca kon nag ñoom ñëpp seen may ñu ko jël mm-hmm. bii ci kii may takk man Ibrahima Niass mm-hmm. siinati lañ rafetalee alxadaraatu xadaraay pays yëpp wax la gën xaafoot mm-hmm. laafoot jabaroot malakoot naasoot nit ñi naan ah xaafoot mooy pays yàlla déedéet déedéet kenn ki rek mooy xadara bi xadara yàlla yàlla jomb na muy ñu ne pii yàlla pii yàlla xëy na ci pii xam nga dafa am yoo xamante ni yow yow yow ci sa bopp boo buñ nga ko waxoon sax yaa war a xalaat mhm. pii bi yàlla bi dégg nga léegi da nga waroon xal buñ ko waxee yow na koy xalaat ne waaw nekk mais la nga ne néeg jiw wala mhm. loolu ki nga xam moo mën a nekk yàlla lu mu def xalifaam moo koy def xalifaam yàlla la la xamal ne xaabu dul moom xaadar suri ak ahadiya a fa nekk ndax yàlla nekk na ñaar déedéet kon nag loolu kon nag ba nga dikkee ci xadra ba yàqul kay ba ka nga xam ne moo taaral xadra ba waaye moom mii la nga dëkk ci laawol ka nga fekk moom mii la nga dëkk jamono nga fekk ba nga dikkee ci melo melo ka nga fekk moom mii la ba ci naaj comme foofu moom mii la kon nag boo toogee fii yow mii nag ba ngi saxal keneen sa nekk gi nga saxal ne man maay naasu ji kon ki moo fay moo tey moo taal bi nag nag yow da da ngaa jël da ngaa jël euh, ñuulal nga yàq mi ngi mel na kon nga fekk mu defar tabaxam ba mu rafet nga jël jël ñuulal tax taxaat moom dong moom moo rafetal fii nii bii sii nag daanaka maanaam sëñ bi sëñ bi ku rafetal lii nii ku ko ku ko rafetal <laughs> ah ku ko rafetal du moom kon na nga dikk ne may ko waaye de nañ seet luñ ñu bëgg bëgg bëgg. nañ seet ni ñuy waxee nañ dégg arab nañ dégg yàlla nañ am imaan nañ ragal yàlla da wax ne yoo xamante ni mooy kon nag wax na dëgg de kon nag waqir na nga ko respecté wa asima te nga fonk ko xasama mooy firi moom màggal màggal mooy fonk maa na maa ndax te ñàkk ko jox respect moo tax ñu ñimee ko ci fii waaye bàyyi ne fo wallahi fo wallahi laa tulfali amasan billahi ibrahima es bu ngi xamal dëgg la billahi ñaari amal aw Amadou Fatou la jaww la ñuy xas yow nga indi nga bëgg fee naa nga bëgg fee nekk ak moom ne man la waaye bu ñu yàqal suñu liggéey mm-hmm. ah xam baxalaa unaasan xar yaraw xayru kasaani mm-hmm. yàlla boral la ñu yàqal ñu fi gis ku Amadou mm-hmm. nga man nga ne man nii la déet yow boo ne man la ma ne man la xam nga mbir mi day jaxasoo fii du pays du pays man la xam nga pays kan la yow la bàyyi rek te kan la yow la du yëgal nit ñi ne yow la waaye nag da nga def loo xam ne day xamee ne ja kii de xam naa xam naa moo tur am lu ko lu ci doon lu ci doon ci fi def lii la mooy fii da fii mooy saadaatul malamitiya ñun nag dañu xamul suñ classe xam nga dañu war a war a xam man waaw man ban classe laa bokk classe ah lii na mënoo caa bokk mooy xaqayiq malaykatu ànd classe alawi yii na mooy maratibul xaq mënoo caa bokk classe tijaan yii na mënoo caa bokk ndax bokkoo foofu waaye nag ñun fi ñu bokk tey mooy maadaat saadaatul malaabit yi ñun kalaasu malaabit yi lañu saadaatul malaabit dana sottal maqaamaat wa tarku karamaat moo tax niñ nekkee ñeent la la kalaas nekkee ñeent xaaliina alawiina tijaaniyiina malaabit yi ne ñii lañ nekkee ci seen awliyaa yi bañ nekkee groupe yi ñu àndal groupe yi nii lañ tudd groupe bu ci nekk dafa am gurba ba ànd a nii lañ tudd gurba ñële ànd ak nii lañ tudd léegi nag boo dikkee na man ci maalaa miit yi laa bokk mooy ci bàyyi laa bokk ñu naa bàyyi nag dafa am boo nekk maalaa miit yi rek dafa am sax de mu naa am ah, naanu saadaatul maalaa miit yi son naa satul maqama doo tëb ko karama fii boo fi nekkee moom da ngay bu la yàlla jox karaama boo xam ne am nga ko fii du manifester kay karaama karaama boo bëggee bokk ci sànq xalaat yi doo bokkaat doo doo fi nekkee war mhm. ñu ne kon lu ñu def mu ne kullu si suxli fi suxli mhm. tarbiya nga mhm. am nga soxla demal dox laan na de ay daawaat bi ñu fi nekk waa war te mun la wala masiyata ñoo ràññe wala xususiyat ñeent ñett yii ñun saanatuma la waaw ci léegi loolu loolu moo fees pay bi fii ne fii nii woote yi woote yi la man la man la naa moom yoof waa yoof na moom <laughs> kenn ku ne man la musiba wu rëy rëy da am kon ñi ngi laay biir nit ñi ne nañ jàngi téeri bàyyi dégg ko mm-hmm. te jaar ci yoon buñu bëgg a jëriñ ci bàyyi ku ko deful dóoral saaratu mala nii ci de saaratu mala dafa am groupe groupe biñu toll groupe kat mie la bañ na ko sax tay bala juddoo kon mie mooy fi xamante ni kenn du foo kenn du fi weeraat léegi weer waaye tey maa ngi ko dégg bi ci tel sama eh, téléphone bi ñaari ñoo xamante ni bokk ci benn kër gi mm-hmm. ah dikk kenn ku ne yëkk sama morom mel la xame mm-hmm. des ba saaga yow ya dara bëgg a fay rek ay ba xoolal bakkan ñooy weerante waaye li nga xam ne ñoo nekk saa bi ma laaj bi doo leen dëkk mukk mukk mukk mukk hmm. boo leen wax ne yéen a bon ñu ne waa baaxam naa la hmm. man day ah yàlla naa ci bokk daal waaye sama ci bokkoon ah loolu laa xam ne moom lay def hmm. kon nag kii nag moo rafetal xadaraat yi wax na dëgg la ñu ne ko waaw bàyyi kooku mooy kan xam nga xam nga li lay xamal ne kenn rek mooy xalaat si ñoom mooy kenn rek ko mën a présenté ndax tey moom mii rek moo mën a kii mooy kan kii kan la bàyyi rasoolun ku ñu yebal ku mu bàyyi ko minal mawla waxu ne minal xaqat kan mooy mawla mooy laahu minal mawla ban jamono wa aadamu boobee aadama si mu jullay xale wa aadamu te fekk boobee aadama la muy kun amul sax ba muy dox risaala mm-hmm. kooku kooku ban risaala risaala boobu ban risaala mooy risaala xamal risaala ijaab kaay ma nekk la nga doon mooy li ma la wax dem boo dégloo ci bindu bindu ci bu dem bi ah xam nga kilise bi bi maanaam kunu làq bi moom moo dóor kilise bi ñu ne ko saatu saasi ja saatu saasi ja nag moo génn nag yóbbu ko ca laawa booba saatu alitu daal génn ñu xam ne ah borom photo bi moo tax ko nag saa photo yii nga xam ne mooy photo saa yi bi ak kilise ba ñoom yëpp da ngeen dàq doo ko dem ci moo tax da nga dàq xëyu dàq xëy soo deful ñaar yi moo tax bi ma xil xëy wal xëy yéti boo demee ci bàyyi xaq yi nii bi ka taxqiqa yeskutu ni sa ba war sama da ngay am taxaquq boo xam ne da ngay wadal yooyu yëpp su ko defee ci la ñuy wax rek ndaxte e, li tax ñuy def di bii nii dafay jëriñ ndaxte nit ñi xam ne lii la wañuwul dara kon nag e, loolu la nekk moom ba muy nekk anam kan la bi maanaa ndax Muhammad ahmad yetu ahmad ba ba mooy doxal Muhammaditu Muhammad ba nekkal ko nekkal nga ndax boobu aadama am na kon nag lii la ku ñu weddi yow yaa demul fañ gis ñun ñu gisul maa maa sama maa sama xol iyam li bay wax ki janoo ak ki nga xam dafa digg rek mënuñu bokk mm-hmm. kon nag ki nekk na dox risaal ga mooy luy luy risaal ga nag xam nga xam nga damaa bëggoon lu dégg xam nga xaqaayiq yi mm-hmm. rasuul ak xaq bi moo coon daw kon xaqaayiq yi karoon daw seen biir bokkul moom moom lañ soxla ñoom tineel lañ léegi nag métro bi maanaam métro bi daw ci seen biir léegi nag réseau yàq li ci yónnoon lan la xam nga lu lan la mooy demal bagage bi joxal ma ko ñoom la bii ba takki wiin la bi maanaa nekkal maa nekk tey naka tey tey ba nga commencé si roowu xel xol dikk nag taxaw di jëmi nit bi mhm. kon li doon dikk yooyu yëpp ay jaarwaay lañu waaye nit gii lañu mhm. moo tax al ñu ne ko aadama adama sax na amada mhm. e, e, ñu ne adama kon nag loolu laa wax kon nag mi ngi bàyyi ko wa arama néew ñu ne ko waaw ndax lisaal nga jax dama ne déedéet wa yabqaa def na rasoolan de ndaw luy dox daa iman faw faw faw ba fi may wax yow nii wa mu assaman muy kuñ fonk kuñ màggal moom rasul bi mu ba tey waaw ndax ru ndax ruuxu wàcce wàccatut ci yaram ru feeg ruuxa ngay yaram yi rek ah risaala gaa ngay daw kon nag ruuxu bu muy xamat yaram xam kon nag kii ba mooy dox risaalaam gi booba nag dëgg dëgg yàlla alami amam ba tey la tey la gën a yónni moo kon nag Ah, rasul bi mi nekk si biir bii du fi jóg mukk rasul min an rasul boobu nag moo tax rasul bi rasul min anfusikum nag moo di seen saale bi léegi rasul xaqi rasul laay rasul min anfusikum bii nii rasul bii nag bi mu dikkee risalaam bi du ko manifeste xam nga nu mu tuddee boppam safir ambassadeur léegi nag mooy tam ca kañ ko yónni kat nu mu ko tuddee safir la ko tuddee ambassadeur dégg nga ndax lu tax ñu tuddee ko safir ñoom duñ manifester ñaari yonent yi la ñooy manifester mooy rasul haq bi ak rasul laay bi kon nag rasul Muhammad rawul gis mi wal mu amara fala nekk ilaa amara ñoom ñaar ñoom nag kon nag rasul bu dikkee seen garaaw ñu tuddee ko rasul rasul min anfusikum nafsahu kon nag koo xam ne mën nga ko gis boo ko fi indee da nga ko war a utal noo ko taxawale ñu tuddee ko takk ndeer waaye nag takk ndeer boo xam ne takk ndeer jëmal léegi nag moom moo taxaw nag ah. raaytu rasulallahi de kan mooy rasulullah yéen xam nga rasulullah xam nga rasulullah gisante naa moom lu ma nasa bi ani safiruloo fi kainat man nag man maa nekk safir moom ambassadeur te ambassadeur bu fi ne nii gis nga fi ne ministère benn ministère la waaye boo demee ba nekk ba nekk biir ambassade moo fa nekk ak président ministère yi ak ñëpp ak kon ambassade dafa mel moo ko waaye ambassade moo gën a yàq ministère kon nag gis naa ko gis moom kon gis nga ko raaytu rasulallah bi mu wax ne gis naa ko moom rasul si nag moom nag bi mu taxaw fi ne jaxal ko ko yaa xayril anaami safira kan mooy xayril anam léegi ki ci kanam mooy nga xamante ni mooy insaan bi nga xamante ni mooy mooy xayril anam nit mii kan mooy yónni nit yi nit ku ko yónni nit yi kan mooy nit yi waaye da yaa yor insaan kuduna zalika insaan benn xam nga ñaar nit ñaar ba tey ñoo ko yor na yàlla nekk ca kenam ka na la ni nekk ci kenam nit ka seeta kii kan la kii de nit la kii de nit la wala fi milliard yi rok nit la nit la rek dañ ko nit ki xamul sax nit benn nit la waaye mun tudd saar nu mu sant kii nu kii fay kon yooyee foofu lañu indee moo tax asmaawu mustara yi moo ñu indi problème waaye benn nit moo fi am benn nit amul <laughs> leen amul rek moom rek kon nag nekk na rasoolan daa iman wa mu asama fa nas atuhoo yaroo kaayam ba kan siyatul xaq mooy kan siyatul xaq la ilaha illallah kenn mos a hmm. moom fa mu amee mooy kan siyatul xaq yi lan mooy kan siyatul moom mooy kurhul xaq moom nii moom fa mu solo nga naka ci kan siyatul foofu la raison bi fa la bàyyi hmm. kuntu kan ka wax loola. Hmm. du yàlla xamal ne mos. nekkoon naa kan san ca denc ba lam óoraf xamee suma foo ahbabtu an umra ma bëgg nag ku ma maa ba dugg ko fa xalaqtu xalqan ma netaaloo netaal moo tax da nga wax ne ma bind déet damaa netaalu foofu nag la kilifa nekk foofu la ma nekk kilifa ci gën ma fa taaraftu fii ma def ca manifesta ma génn nag ñu yóbbu ma ci laa booba fa tey daal di kon nag fa bi fa ne kon nag boo xam ne kii day mooy fara kon nag ba nga demee ci kilifa xamee ko ne waaye de ah kay daa am sa xam tuuti bi xam nga waaye Fra moo nekk nii. kon ka nekkoon ci kën see ba nag. kunu làqi foofu la nekkoon foofu la nekkoon nag génn ci fii nag ñu ko. kii ki ngeen gis nii tey moo nekkoon fan sa too kan seen àq. wax doomam dong dong mu nekk fa nag amul kenn ku fa nekk. li saaka nee tax. ataanaa la ñëwal ñu. xaasiman mooy séddale. wa mu xaasiman te moom la ñu séddoo. wax baat baat bu njëkk a moom moom moom moom mooy séddale te ñoom ñun bu ñu séddoo moom lañ séddoo bi maanaa nag bi ñuy def ay saam séddoo saam ba moom lañ toj ay saam séddoo ko fa wa akli wa sarabi wa wa diini wa diinaani wa tariqi wa tariqi wa lu ne waaw xayraat isaan kon nag kii la kon nag moom mooy séddale te buñ paree xool ñu ne ah ma yéen ma doon kii moom li may xamee ne nekk na nekk na séddale ah moom la de. Hmm. foo ji yàpp fu fu nag jëlee yàppam fu ko xar jëlee fu li nga nekk ci ceeb ak yàpp foo ko jëlee dara mu ne fi alama an saa yu fa lay si wax ko kon foo jëlee ceeb bu saa yu ci kaw saa yu ci kii dara am fi la mu mën a doo mën a jëli. moo tax fii buñ fi àggoon tey dañ dem bu ñuy lekk ceeb sax dañuy jooy dañuy jaaxle bàyyi ne taqwa bi ci moom moo wax taqwa bi ci moom nekkul ci kenn hmm. ndax lan. boo xamante ni sa lekk ga sa naan nga sa lépp kenn ki rek la xam baax naa naa sam xale raw xëy rek sànni ma gis saamu yàpp ne du yow ko ko ko ku ko gis loolu yàpp man de Ibrahima gis du ma ko gis mu mukk mukk mukk kon nag lii liñ bëgg ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu <laughs> alhamdulillah alhamdulilah alhamdulilah